nga lay ziar. ñu ngi ziar bu baax ñu ngi ziar bu baax. gannaaw bay sant yàlla julli sama sant suñu ñaari waajur di ñaanal ñëpp jàmm rek di ñaan di wax ne bisimilah rahmaani rahiim commencé ko saison bi commencé na depuis dimanche passé waaw ñaan ñu commencé ak bisimilah ci alhamdulilah rahiim. fu mu bi. waaw ñu ngi ci comme d'habitude comme saison bi booy seet ren c'est benn benn an benn mois rek la tëj daanaka léegi amul mbëri amuñu arrêt parce booy seet. maanaam maanaam boo dégg boo olof Ndiaye sax li ñu koy waxee lan saison bi dafa ëmboon ëmb gi mu ëmboon moom mooy dañoo jël avance yoo xam te booy mbëri mënuñoo bëri ak yi fi jaar booy seet nag léegi yi saison bi saison bi passé yi fi jógee moom la ñuy jukki ba pare soo ko ñi nga xam ne ñoom lañ tëgg ren ñu soog leen nag kii nii moom moo tax làmb ji tëj ren un mois parce que daanaka lekk na ñaari weer ci làmb ji ñu waroon avant saison bi waaw waaw moo tax un mois bi waaw moo tax sa combat dafa taxaw waaw sama combat ko tëgg Pape Thialis ko tëgg le 6 janvier pour le 6 janvier incha allah waaw 2024 2024 waaw ah, waaw macha mm-hmm. na solo jigéen nga xoolee làmb combat yi muy taxawee jamono jii ak par rapport ak bu njëkk ba est que làmb amul changement ci ñu combat taxawee est que léegi mbëri nekkul palmarès maanaam boole mais palmarès boo xam nga bu njëkk lu leen doon taxale moom mooy promoteur bi doon tëgg làmb am sponsor am sponsor am boobu mu amoon moom moo tax muy catégorie catégoriser ñu doon bëri booy seet kalaaf bi jaaroon fii nii ñooñu catégorie lañ génne woon ñii waroon ñu mën a bëri ñu génnee leen parce que sponsor moo dirigé woon waaye actuellement fi mu ne nii supporter dafa diriger gars yi loolu lay problème yoree sa mbooloo pour ñu côté pour ñu pour ñu génneel dafa yomb. moo tax léegi ni mu ci génne lay xool moom. non loolu avantage am lay set parce que tey jii kenn bëggul tëgg perte ku gis ne tey jii nii sponsor amul. nga bëgg a tëgg làmb joo xam te ne tey jii day am ampleur tëgg mbër mbër yoo xam te ne tey dañoo am kii nii dañoo am coow te amuñu mbooloo seen mbooloo demeewut noonu léegi boo ko bëgg a tëgg il faut nga am sponsor bu nekkee da nga amul sponsor rek te fay leen centaine de millions da ngay daanu loolu tax ngay gis ñu catégoriser léegi da ngay gis léegi sax loolu tax gën a looloo gën a sax waral sax grand grand contre yu bëri waaw loolu waral gën a grand contre yu bëri. mbëri mbooloo moo leen mooy taxawal seen combat. waaw fini nii de moom mun nañ ko wax moom. mën nañ ko wax wax dëgg yàlla parce que fi ne nii coow lu yu bëri ci coow lu yu bëree moom bu sa coow bëree nga am mbooloo bëri moom boo bëree soo assuré sa trois combats quatre yu dëgg rek waaw yoon bi day gaaw daal mun gaaw daal macha allah mais nag amul mucc amul mucc amul mucc amul li tax amul mucc moom mooy di nga war a nga war a nga war a di nga war a dëgg demee dëgg li nga war a rampe nga war a rampe dëgg doo ko rampe waaw li nga war a dëgg dëgg doo ko rampe léegi booy seet tey nii nii yow yaa ngi yaa ngi waroon rampe yéeg par par escalier escalier par escalier boobu noonu yéegoo ko nga jékki-jékki am topp sa coow lu mbooloo ñu fay la sant mu taf-taf parce que ni nga koy ni nga koy fayee ko noonu lañ la a wàccelee taf-taf parce que boo bëree combat daanu daanu waat rek daanaka loolu ba doon fayee ko 20 millions ñu fay la 2 millions 3 millions parce que sa wàcc bi la ñuy topp te mbooloo bi léegi gaa daanaka mbooloo bi coow la ñuy topp rek waaye comme yaa ngi am coow rek. waaw moom dañ lay waaye boo amatul coow moom dañ lay bàyyi. Ah, am na solo bu ñëwee ci combat bi amoon temps yi passé arène nationale Zoss ak euh, Ada Fass est-ce que Zoss bi nga gis keroog arène nationale ak Zoss bi nga bëree loon am na différence. trop que dafa toog si dafa dafa bàyyi làmb dellusiwaat. bàyyi làmb dellusiwaat. dafa bàyyi làmb dellusiwaat bi mu ñëwee benn sorte la def. diggante ba euh, nu ñu ko waxee sax Alioune Seye 2. Alioune Seye 2 dóor ko. mu am mu am blessure ñu yàq yàq combat bi. toog na fi deux saisons bëriwul. lii mooy troisième saison bi kon booy seet. toog na quatre ans. toog na toog na quatre saisons yoo xam te ne bëriwul. plus de saisons yi nii waaw kon six lay doon waaw ci li ma yaakaar bokk ci li ma ci li ma yaakaar kon day perdre repère la force waaw ba pare euh, expérience face à la jeunesse la woon xale ak nag mag la woon. Mhm. xale ak mag la woon. état bi indi keroog jaadu na ci yow. comme nan. ñu en forme état bi foofu bi mu est-ce gis nga ne jël na combat bi aussi ci côté entraînement. xam nga li ci laaxatu moom mooy li am avant làmb ji ñu ne dëgg lan du dëgg. accident waaw man damay jàpp dëgg loolu dafa impact ci combat bi. waaw parce que xam nga mbër moo xam te ne day toll fa day tollu diggante boo xam te ne am nga ñun tey jii nii nii am na loo xam te ne tey du neexul wax mais dëgg la bu dootoo succès ci làmb ci xaalis ngay wut ci xaalis yi booy mbër booy am coow nga ci nga ko mën a jëlee ji waaw léegi nag yow mënoo dem ba ñu ne suba la sa làmb ci am nga am soog nga am yaakaar ne war ngaa mën a bëri ji ñuy fomm làmb ji ngay commencé waat mën nañu ko jàppal 3 mois 4 mois ndax di am préparation bu noonu day métti waaw. souci boobu noonu xëy na mun naa ne côté boobu mun tënk mun na ko waaye comme Zoss mi nga xam ne mooy mbër mi moom moo jël intention day bëri ji waaw. léegi Ada bëri ak Zoss mu daan ko am ci ci victoire ñu doon wax combat guy gi ak Covent ñu doon wax combat guy ak euh, bëri nañu ko doon waxal nga dégg ñu ne combat Ada Fass taxaw est-ce que loolu du décourager mbëri mbëri ci ci benn côté bi. non non ku nekk sa góor sa ngay lekk rek ku nekk sa góor sa ji moo toll noonu. jamono ji moo tolloon xam nga booy seet jamono jamonoy làmb jëkk njëkk ja kan moo nekkoon si làmb ji si comme comme fi télévision benn télévision rek moo fi nekkoon waaw RTS rek moo fi nekkoon doy après day jur ba mujj gi seen internet ñëw di xëccoo télé kii yi télé yi waaw journée yi kon am na yu bëri yoo xam daanaka changé na changé na trop xaaruñ ko xaaruñ ko woon foofu nag si guy gi ak Ada Fass mais chaque jour loolu te Olof Ndiaye di wax ne làmb du biir day xëy si loolu yàgg nañ ko yàgg nañ koo wax ci la looloo tax ñu ne làmb ñëwaat tey làmb du biir day xëy wasin kon wax loolu la avantage bu avantage bu avantage bu promoteur la avantage bu mbëri la waaw d'accord am na solo dama lay woon woon benn photo nga am jàngat yoom si defal mais balay loolu face a face Modou Lô Ama Baldé kàddu ñu fa weccante ñoom ñaar loo ban jàngat nga ciy def bala ci biñ direct bu mujj bi bu mu direct bi biñ jàkkaarloo ñoom ñaar ak kii nii live bi quoi ah ñu ngi am nañu am nañu naxante de naxante waaw ñu naxante de bu sax donc ah, mbër ci kaddu wala. waaw ci kaddu bi xamul tax may ndoxante ci kaddu bi. am na ci mbër moo xam te ne li muy wax moom dafa bëgg loolu beneen mbër mi jëfe ko te bu ko jëfee avantage am la mooy chaque mu ngi koy poussé à bout rek waaw kon xam naa bu ci duggee a leeral. boo bëgg beneen jëfee jëfee loolu. waaw mu jëfee loolu il faut mu poussé ko à bout maanaam il faut mu xoj. avantage waaw te loolu mooy avantage am. lu wax foofu. maanaam diggante Ama Baldé ak Modou Lo seen avantage ku ne xam ne ne Modou avantage am bool bi suuf lay fër seen diggante ñoom ñaar taxaw foofu noonu xaar Ama arrangé wu ko mais pourtant Ama mu ngi koy teg sa mu def loolu bu suuf rek mu taxaw jeexaat ak moom te loolu avantage su Ama la. loolu avantage day bëgg mu jeex. waaye nag làmb xam nga tey jii dañuy analyse analyse bi fi koy teg mooy leer dafay leer. da ngay am yaakaar ne tey jii nii nii ama ku ne xam na forum lan la bu arbitre bi soufflee fur seen génne seen diggante ñoom ñaar avantage am moom lay def avantage am moom mooy lan génne suñ diggante ma libéré sama supporter moom loolu mooy forum Modou Lo sa làmb mën na ko maanaam siim na mëq na moom Modou Lo xam ne yëpp moom mos na siim na mëq na maanaam bëri ko combat bu yàgg bëri na combat bu gaaw bëri na combat bu yéex léegi booy seet avantage moom ca làmb ja bu arbitre sifflé fur mu bu ko topp maanaam du ko topp si waxam daal parce que lii amaat yoo xam ne da koy dugal dugal li ñu koy dugal moom mooy day bëgg mu siisu taxaw te siisu boo arrangé wu. bu siisoo taxaw amaat dal ci kawam lu ci lu ci mën am. waaw mooy avantage su parce que ku ne na ne moo gën a diis Modou Lo kon xeex bi mu Modou Lo a mu dëgg du ko am wala bi gàng rek du ko am te ku ne nag mën naa daan sa morom ci xeex bu nu foofu noonu ku mun na faa jóg mu kaaw yooyu yëpp mun na caa am. Eh. waaw loolu loolu loolu mooy avantage bi ku ne mun na caa dóor mën na caa daan parce que foofu mun dugg génn mun na am rëpp am parce que booy seet Ama daal di si làmb yi di sa trop. Ama dafa diis di sa dégg naa ko sax muy wax si biir interview bi naan su ma xamoon ne Modou Lo nii la toll non du ma ci def ah, loolu communication la rek xam nga ñun mbëri xam nañ loolu communication la. waaw loolu ku xam ne ku xam ne ku xam xam ku xam jiit sama lay am na benn mbir benn benn benn mala du ko teg jox jox da koy jox gëdd par la force. waaw mais bu ko lekk wax nga léegi génn ay kii dugg génn. mu wax ne bu wax ne su ma maanaam psychologiquement lay doxee si kawam psychologiquement lay dox booy seet mi ngi moom chaque jour ama mi ngi dox si kawam dox si kawam bi moom mooy bal bu suulee fur na nga taxaw waaw. moo tax mu naan ko man su ma xamoon nii nga toll du ma def cent francs maanaam du ma def mille francs téléphone si si sama làmb ji. est ce que Modou Lo nuru na la kuy war lu mu wax noonu ne ko bu arbitre sifflé du ma arrière dañuy dajee man ak yow. Modou Lo moom ku ne xam ne ñaari combat mu perte moo ko moo ko ñëpp xam nañ ne carrément bi muy bëre ak ak ak yi ak Bombardier bi siisu la moo tax maanaam du jekk su jekkul au lieu mu génn géew géew bi day taxaw siisu day riposte te làmb dafay am foo xam ne boo jekkul da nga war a génn ba jekk ñëw. sànq dégg naa nga ne euh, dugg génn rëpp mën na ci am. mais loolu gis ñu ko faral ñaari mbër duñ la faral ni gis ñi ñu ñuy def loolu. mais Modou da koy def. imagine rek Ama maanaam ci rëpp boobu nga wax. waaw déggoo ma ne imagine rek Ama gëdd ko Modou dem ci suuf. Ama ñëw du ko fekk su mu ràccee ko foofu kat amun fa am. loolay problème déggoo ma ne loolu yëpp mun na fa am ca làmb ja. maanaam lan indi loolu. waaw xam nga loolu moom chaque jour làmb làmb moom chaque jour dañu loolu la ñuy wax rek dañuy wax ne carrément ne da ngay foog ci côté bu ne parce que jour ne booy seet yi ni Ama. bool bu suñu génne seen diggante yéen ñaar moom li muy def moom négocié wu mooy dal sa day daal sa kaw waaw day dal sa kaw parce que tey jii nii xam nga moo Ama tey ku ko xam xam ne moom du rawal mbër mais làmb ji dafa war andi benn stade boo xam te ne tey jii nii war na mu demee mbaa moo xool daal waaw waaye loolu xam naa ne waajal na ko ndax ay staff am waaye chaque jour Ama moom li mu teg teg na ko te tamit mu koy poussé au bout. baat bu suuf lay génn suñu diggante kenn xam na ne ku ne xam na ne du ma dellu ginnaaw te du ma yàggal samay si mais ah, côté Lo lañ ko gën a waaw Modou Lo mën na génn du génn parce que koy def compte moog la dagee def na ko ñaari yoon sax compte moog def ko Bombardier mais génnaat waaw mais Bombardier def na ko mais génnaatul génn waaw moom xam na dafay insister nag moom bu xesee dugg day taxaw dafay yàgg ci biir dafay yàgg ci biir mais ji ak Ama bokkuñ Bomba ji moo gën a dis gën a ama mais benn catégorie bëri lañ benn catégorie bëri lañ parce que ama bu ab génne si diggante day dox sa kaw du arrière Bomba ji tamit dox sa kaw du arrière. den hmm. différence bu xeex moom mooy ba ama day marto te Bomba ji day laaw waaw fausse garde garde normale loolu lay problème bi kon avantage da ngay jàpp ne Modou Lo moom avantage bu xeex ba waaw. mais avantage xëy pour mu pour mu pour mu maanaam maanaam pour mu fës dëgg dëgg dëgg il faut mu damee ak moom. gauche fii droite génn dugaat laalante fii yooyu mun sa ñàkk sa làmb ja bu dee moom la bëgg avantage sa làmb ja waaw. comme am rythme daal. bu am rythme mu am ah, man moom pour mu avantage moom mu avantage si moom génn seen diggante fa day bu génn gauche droite bu ko waaj a gëdd du ko fa fekk ba pare di tàngal loxo yi di xeex ak moom benn benn. foofu la dina bëree lool xeex ah. ma bi passé daan nañ gis nga mu bëree façon boobu. day xeex day xeex day wër moog Gris déplacement yu bëri ay. moog Gris boo da ko def. waaw moog Gris da ko def. du ba bëgg day bëgg a jàppante am na combat du bëgg a jàppante. day éviter jàppante. bi. Eh, mais booy seet nag face dafa nekk face au Gris Bordeaux xam nga comme Gris day jam cross ba pare laaw day dugg. Fass Gris war a dugg génn. loolu ma nangul Gris na ko nangul Ama. non bu Ama moo Gris bokkuñu Ama Gris day taxaw di xeex Ama day mam day day bëmb sa kaw seen différence loolu la. Ama day bëmb sa kaw bu bëmbee sa kaw bu bëmbee sa moom da am da jàpp ngeen bëre mbaa ngeen xeex te jàpp bëre bi sax moo ci ëpp xaw ma nag Modou bañ bëre bi xaw ma waaw. dama lay woon benn photo ñaari photo sax laa lay woon ku si nekk seen état de forme actuellement nii nga def ma si ay jàngat Ama a woon bii doo en tant que mbër boo gisee photo ah, na poids moom gis na de gis na de man nag su ma doon man ma man de su ma doon man di bëre ba ah, Modou nii mu toll naa wàññi poids bi tuuti ba am rapidité comme moom teew li nga am si di diis te da ngay gaaw. waaw mais ñu wax ne Modou Lo boo ko ëppul poids boo ko ku doole tuuti mën a daan est-ce loolu loolu foo koy foo koy foo koy wax jug noo koy jàngatee. taay bi lañ la taay bi. taay bi taay bi. da koo sut doo ko longu large ko ah waaw ko longu longu ko large ko de dañoo tolloo ci taay mu yaatu gën koo yaatu bombardier da koo longu large ko waaw loolooy problème bi mais taay bi guddaay bi moom moo tax ñuy wax. pour avant mu indi souplesse ci combat bi. ah dafa war a ngaaw dafa war a gaaw ah xëy na parce que nit ki moom ku kuy wax da ngay wax te yàlla tax parce que entraînement man li ma mën rek mooy analyser seen diggante ñoom ñaar mais xëy na laa xëy na gaaw na parce que lii mooy entraînement tey jii ne xëy na moom moo ko doy waaw. fii fii euh, ban xeetu entraînement la doon def selon non dafa def entraînement daa entraînement pare rek nii daa mel daa jóge si contact bi. si waaw waaw na waaw tax na na daal. Ah. beneen beneen bi laa lay wan muy boobu Modou la boobu tamit même chose nga nga wax noo gisee jamono ji ñu toll nii. loo ci jàngal. <laughs> de forme baax na de forme moom forme moom macha allah. ndax xam nga moom état de forme moom ba léegi ba léegi changé wul. durant cinq ans bi mu bi mu toog compte bëriwul état de forme moom changé wul maanaam cinq soo xaw cinq ans daal la toog bëriwul mais état de bi mu doon andi la andi te da koo sax nag parce dafa gën a musculé dafa gën a dagg. Hmm. gis naa ko tamit mu ma ni gën naa liggéey loxo yi ci côté xeex. Hmm. naa liggéey loxo ci côté xeex. Hmm. moo tax ma yaakaar ne moom parewul sax pour at bi sulle fur mu xaar ama mu dal si kaw. mi ngi wax ne sax bu arbitre suulee ama bu doxee seen diggante ñu daje ñoom ñaar mais est-ce que loolu dina jàmm. waaw déedéet yaakaaruma ko hmm. rek yaa ah est que yow yaakaar naa ko ah la Lo dina faral di changer ay li muy wax li muy def li muy wax ci face à face li muy bëri ci biir combat bëriwul moom bëriwul mais xam nga sax la lamb moom dañ ci bañ ko bàkkee wor dañ koy da ngay des da ngay wor ci la bokk. waaw xaw ma ndax loolu lu mu waajal la xaw ma. ak actuellement nii nii seen écrit bu bees bi parce que yéen nii lu lu ama gaaw Franc gaaw na ko Gora Seck gaaw na ko ñu ay bërikat lañ te mu ngi ànd dama yaakaar ne pare na physiquement. boo doon jox pourcentage ci côté état de forme ku ne ñaata pour cent nga ko jox par rapport ak moroomam. par rapport ak moroom bi ku gën a baax forme maanaam. non ñoom ñaar ñëpp moom wax dëgg yàlla mënu ma leen gisee kat kii waaye gis naa seen état de forme yu baax nañ xaw ma mbër laa comme ñoom am xam ne su ma si duggee rek day mel waaw yaa a xam. kon à 50 50 état de forme. waaw état de forme mën naa jàpp 50 50 en tout cas daal moom gën a taxaw musclement waaw mais bu dee 10 moom kay moo gën a def. ah a 10 waaw moo hmm. gis naa ko ci ñoom ñaar. comme hmm. ci yow. Hmm? am nga favori ci am favori ñoom ñaar a ah, gars yi ne nañ Ama mooy favori de ah loolu la ñu wax de. d'accord nga ci ah non favori moom boo koy jox Modou Lo nga koy jox parce que moom moo yor couronne bi waaw moom moo koy jox waaw. yàlla merci. waaw tawfeex rek